ayca yegg leen ak jàmm si dalal jàmm TV ñu ngi leen nuyu waaw ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziyaaraat tey ñu ñëwaat ak yéen seen émission bi nga xam te ne bi dafa am solo ba euh, nit ñi di ko laaj saa su nekk tey nag actualité lañ ñëw ak yéen euh, ci li nga xam ne bi moom moo fi xew actuellement ci rayaate yi nga xam te ne bi bëri na ci dëkk bi euh, ñu toog ak Abdou Fatah moom mi nga xam te ne tam moom am na ci xam-xama màcc na ci ñu fas yéene waxtaan ak moom laaj ko lan la gisee li nga xam te ne moom moo di rayaate ci dëkk bi sëñ Abdou Fatah nuyool ñu dugg ci waxtaan waaw asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum mbokki bitim réew comme nan laan ko daan nuyoo rek di ñaanal kilifa diine ak kilifa aada yi di ñaanal ñëpp jàmm di ñor mbaa xel mi màccu ci rey nit nga wax waaw <laughs> ah, waaw kon baax na ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziare. <laughs> Ah, sëñ bi euh, comme niñ koy faral di defee ak euh, mbokk internet yi chaque semaine ñu indil leen euh, lu bees tàq te nag ci lu ñuy ñëwee mooy rey bi nga xamante ni bëri na ci dëkk bi nga ko gisee. waaw si man ni ma ko gisee mooy. mu toll nii li gën a ëpp nag ray beek yooyu sëriñu tariixa yi sëriñ ñoom la de hmm. ah waaw politiciens yeeg da yàlla xam doy na dañ leen di digtal defal lii defal lii am na ña nga xam ne sax ba dañuy dem ba dañ leen di digtal laaj leen bakkanu doomu aadama am na dëkk bi bul na dara amul de xamoo looy wax gisuma boo nee gisuma moom ñu d'accord mais dara amul dëkk bi li fi am actuellement nii junior ci wàllum xarga fuufa ak wàllum kii kenn xamul lan la ray bi bëri na xoolal ma semaine xaw li xew jàmm gën ci semaine bi ah, ah bi gis nga ko femme bi rey bi rey doomu doomu kii bi lool loolu maanaam dëkk bi la nga xam ne ñun ay jamono dañ ko daan dégg Sénégal mosoo see gis yooyu léegi la xew ci jamono yi te man la en ah, bu bu réew mi yëngoo rek laay gis bakkan yi commencé di wadd comme xortu gerte li ma leen di tegtal mooy yéen ñëpp kenn ku ci am sa doom te ko di ko bàyyi xel parce que réew mi jaxasoo na de bëri na nga naan man ran sàcc bëri na am na ci ña nga xam ne sax man koo xam naa ko ba léegi gisul doomam ba léegi xoolal Mourtala bi dëkkoon Touba ba léegi kenn kenn kenn kenn tegu ko bët te diggante mi génn këram dem kër maamam ba noonu ak ay yeneen ak am na ñoo xam ban dalee wër seen doom kenn xamul kañ la réew mi léegi dafa réew mi sa boobu saa ñu sàcc la de ah ñu ngi sàcc ay mag di xanaa gisoo kin bëggoon a sàcc fan yee mm-hmm. boo fi dof dof loo yow ñu sàcc la loolu moom yow ma xam naa la loolu moom dama la way réew mi fi mu toll nii ku yabu nga moytu te li may digtal jeunes yi mooy ñu moytu fitna parce que xamal naa leen de fi mu toll nii nii boo ko amul sens dëgg dëgg dëgg dëgg sa bakkan dina des ci jamono yii nii loolu moom dina dinaa la ko wax nga mën koo bàyyi xel man na du ma sëriñ ba nga xam dama naan ay diw war naa dee suba ñii ndaw ñi naan sàngoo deret fen yi man néew ma ci fen yooyu damay wax jeunes yi li nga xam ne nan ko moytu ci wàllum fitna parce que nag fitna du yem ci bopp borom nan moytu fitna gi te topp seen liggéey tey muñ tey moytu parce que nag gis nga léegi maanaam wàllum xulóog wàllum ñaata ni nga gis ay nit di reyeen ci ay fukki dërëm ay làmb xool li xew jàmm gën jamono yii nii maanaam fi mu toll nii déegi mooy man ni ma ci xam mooy nanu moytu loolu laal la mën a wax ci union te suñu sàcc gi doy na sàcc gone gi doy na waar de. démb rek tamit euh, ci stade bi nga xamante ne bii barki demb ah combat bi fa amoon benn waay lañ fa dóor fusil mu dee sur le champ. ñoo ko dóor <laughs> xoolal li may wax man xam nga li xew ci dëkk bi sax ah waxuma laa xanaa xamoo yow làmb bi xewoon fii ci buntu estade bi ñun la ko bi fii leen ko dóor ci biir par ci biir appartement bi bërki dem dimanche bii nii weesu bi làmb bi xewoon ci biir la gars yi dóor benn la te am na benn paa bu nekk fii retraite lool moo ko rey looloo ko rey dañoo dóor benn benn kii ci biir mu nooyu ko fa la fa la génne àdduna ci biir appartement bi li xew maanaam ci réew mi ci wàllu maanaam man maanaam li fiy xew yëpp junior kenn mënu koo wax gis nga réew mi ku yóbbu nga mooy te naa xamal leen nga politiciens yi ku ñu reeree dong la ñuy wër kon ndaw yi nañu moytu politiciens yi man wooteelu ma ma Demba wooteelu ma ma sàmba fii réew mi ku toog baax na. mais noo gisee fii réew mi toll dëkk boo xamante ne bi ñaar nit ngay dégg muy Macky Sall ak Sonko kese. waaw kon euh, junior li nga wax noonu moom dëgg la réew mi actuellement fi ñu toll nii Sonko Macky. Sonko Macky man duma Sonko duma Macky man sama sama liggéey laa tal ku toog ku fi yàlla teg rek baax na noonu rek laay dundee waaye kon jeunes yi li ma leen di wax mooy jeunes yi nanu moytu xoolaat seen bopp parce que bo junior boo amul nii bu ko réew mi naree naree continuer nii dégg dina bëri de dégg dina bëri dina am ndaw yu bëree bëree bëree bëree bëri yu ci génn àdduna ba ci euh, tëggum bool mi sax nan yoboo kuy mën a moytu nga moytu ah te gum bool mi man ni ma ci gisee moom wax dëgg yàlla moom dama la wax rek nanu moytu rek ndaw yi nanu moytu ci bisu ba bii ñuy tëggee bool yi ah affaire yi nag te gum bool yi am na mbir yu ci laaxu de te gum yi am na mbir yu ci laax moo tax ma ne leen ndaw yi ndaw yi nan nan nanu xoolaat seen bopp te xamal naa leen de gis nga ñi lay tëgguloo yeneen xam nga am na si nga xam ne mënoo wax te réew mi soo waxee ñu gàddu la kon suñoo nan nan nan nan yem foofu rek waaw te maanaam ndaw jeunesse bi dañu xoolaat seen bopp xam ne dañoo war a dimbale seen yaay ëllëg dimbale seen papa te xoolaat réew mi dafa jaxasoo te ñu bëri ñu ngi lay digtal demal nga kii te ñoo ngi ñu ngi seen kër toog ak seen doom de lu leer laa lay wax ñi niy teree jàng mooy ñi nga xam ne ñoo nekk école primaire yi mais ñeen seen doom yaa ngi ci ay France kon jeunesse bi moytu leen lii ma leen di tegtal moytu leen wàllum bruit bi ak yenn yi parce que am na ci nga xanaa xamoo nit dafay xabtalu te am na ci yenn doomu aadama yoo xam ne dañuy bañ a gis mbooloo am na am na ci nga xam ne seen rawxaan bëggul su ma duggee ci yooyu day ni mais na ci yenn doomu aadama ya nga xam ne bëgguñu di gis mbooloo saa bu gisee mbooloo danañ def la nga xam ne après dañ koy réccu am na ñoo xam ne saa bu ñu gisee mbooloo leen di xital mooy dañuy fen rek dañuy fen di fen di fen di fen ba fen ba fen fu dara newul mun toogee ne ay li ma doon wax est que dëgg la am na ñi nga xam noon na leen yàlla bindee genre nit yooyu nag dañuy moytu yenn ndaje yooyu noonu junior loolu la ñuy ñëwoon tey wax ko ci li nga xam ne moo xew ci réew mi waaw ah, boo amee beneen question xëy na loolu daal xanaa kañ ma laaj la rek lan ngay tëjee may tëjee li ci ëpp ci lii di xew ci réew mi sëriñu tariixa yi la loolu moom dama ciy wax waxati ji li ci ëpp ci sàccum gone meeg lii xew ci parce que ñoom ñooy digtal nit ñi koo gis mu def dara rek am na lu tax mu def ko te réew mi li ci ëpp léegi mooy mystique mystique bi moo ëpp ci defal lii defal lii te ab jullit nag si junior war naa mën a moytu leen li ab sëriñ di ko ko defloo te li ñu ci ëpp leen defloo dañuy fen sëriñ si sëriñu tarixa yi dañuy fen li ci ëpp dañuy fen waxuñu dëgg tey waxuñu dëgg suba man fa ma génn ci ñoom mooy nit ku taxaw naan nit dina dee suba wala nga ne nit dina génn àdduna tante am ku génn àdduna nga jël foto ba taf ko man de ku ko def sama mbokk moom dama lay fetal loolu moom bu yeboo ngeen teel koo xam am na ci ya nga xam ne yëf yi la de waaw ah, baax na.